sëñ bi ni ñu expliqué mbirum rab yi moom mu nekk loo xam ne dafa doy waar lool ñun Ndakaaru fee ñu nekk moom tawarkaala macha allah fajkatu rab yi bëri na fa lool lool xam naa dinañ faral di wax nag kon nañuy ñëw Thiès di xool parce que ndekete lu waaye doonu daal dafay dëgër te yéen da ngeen dafa doon loo xamante ne xam-xam la bu ngeen doone seen i maam te li seen famille di yaatu yaatu macha allah mennum yow miy caat yow la ko yàlla jagleel nga di ko def waaw xam nga dama wax sànq ci wax ji mhm. ni maanaam nit ki war yooyu mhm. dama dem Casamance yàlla nag dafa maye. parce que mhm. tamit bu maye famille am na famille ma dem ci benn góor gu ñuy wax. Mhm. Ba Diédhiou xam bu ñu bari dañ ko xam ñu dëkk Casamance ñu bari xam nañ ko. Mhm. ñuy ñu waxtaan ci xam-xamu cat. am na suñu borom ci yooyu la ko maye mu ma dama doon jëli ci secret boobu. muy seen lam yooyu ñuy defar nga xam ne lam yi dañ naan Ba Diédhiou yaay ki koy tëgg. ak ki koy defar ci yooyu la ñu mu am ay alxuraan yu mu àndal yoo xam ni. Mm. dañ ciy faj cat xam gis ñoo xam cat ren mu leen di yàqal. cat dong nga leen sonal leneen sonalu leen. Mm-hmm. ndax dañ koo xeeb nag lool. Mm. dama fay wax siti ñoo day baat bu baat tuuti boo xam boo ko waxee da nga ah loolu daal cat. Ah, day yóbbu nit si bàmmeel. fekk ne mën na def lu garaaw. Ah. seen seen lam yu ne am na nag sangar yu ñu ciy def yu day waar yoo xam ne. ci lam lam lam boobu nga xam ne bàyyi jéeg yaay jéeg ñoo koy defal. Mm. bu caagin da nga am na ñu koy jaay ci mbedd yi mais nekkul lam yooyu nga xam ne dañ koy jaay ci mbedd yi Ah. dafa am secret bu muy àndal ak euh, lu muy àndal yu bari yoo xam ne nii ak yenn ci ay ay alxuraan. Mhm. yoo xam ne noonu la dem bu ko defee nit ki di ko sangoo. Mhm. kooku bépp cat bu mu fekk ci nit daf koy dindi maanaam yi nga xam ne gàllankoor nit. Mhm. laa moo xam cat la moo xam rab la. moo xam ab liggéey la comme nee naa ñett yooyu dañoo ko nit ki waxtu boo xam ne lan moo ko bu sëriñ bu ñëwee ci sëriñ bu mën seet. xam lan moo ko dal rek. faj ko du jafe. waaw ah, fekk ñu ñëw si euh, avant dañ dugg si set bi tuuti nga may ñu si mais da nga wax lu am solo. muy ku rab jàpp ak ku cat jàpp léegi ku liggéey jàpp bu ñëwee nan ngeen koy xamee. waaw parce que seet Set, lo lay jëriñ. d'accord seet muy moom consultation mhm. maam nit ki waxtu yi nga xam mënut a seet. waaw mënut ñaanal kenn parce que ki nga ñaanal day fekk nga xam li ko dal. Mm. seet moom loolu moom moom moom xam nga te itam gis nga sànq lu fi xew lu bari yoo gi sànq. Mhm. seet moom loolu loolu loolu suñu suñu domaine la tey seet képp ku ku la ki la ko gën a mën mooy ki ànd ak ay ay àndandoo. Mm-hmm. parce que duut ne seetu ba maanaam moom day tomb nii wax la wala yu demee nii waaye dafa ko diw mi kat nangam ak ci moom nangam mooy problème moo tax seet damay faral di ko gudd keeg ku gàtt keeg ku ñuul keeg ku xees keeg moytul keeg yooyu. Mm-hmm. mais nit ki xoolal li nekk problème mm-hmm. nga ne ko lii la. jéem ko saafara. moo xam ci sarax lay doon. moo xam ci sangut lay doon moo xam ci wàllu kurus nga ko jàppal defal ko ko. mais lu mën a rek mooy seet moom loolu dañ koo mën. parce que mooy njëlbéenu xam-xam. te man laataa sax muy dugg ci man daan bi ma gën a xale daanaa jékki ci xool nii rek ne ko yow nangamam nangamam ne daaw ma xam sax lu ma ko doon wax loolu. Mm. dama dem ba yàgg loolu daal dem. d'accord xaw ma duma ko ko gisati. Mm-hmm. bi ma demaatee nag ba nga xam ne affaire ñëwaat na nag. Mm-hmm. ci laa tàmbaliwaat loolu. Mm-hmm. des nit dina ma wóor yi su ma neexee bu ma neexee ne la bul coupé. moo xam ne nee na nga mag naa mag naa lii mooy sa problème lii ma. di lii ak lii ak lii ak a a jël mhm. lu ma ne ci wax du kenn du dindi. Mhm. waaw te dama koy faral di sax ñi may woo maanaam seet moom. Mhm. defandoo ma ko kenn. Hmm? ndax dugub li may li may li may wax loolu nekkul ci man la nekkut maanaam ci man la daal. d'accord yoo xam ne nag ñoo lay questionné la diw mi kat lii ak lii ak lii. Hmm. loolu ñi ñuy jëflanteel seet boobu xam nañ ko bu baax a baax. Hmm. Mbadou kon seet bi mooy wala rang bi wala euh, nit ñi dañuy fecc rab wala. ah kañ parce que nit ki nga xam ne nga ko seetal ni ko yow lii mooy sa problème. waaw dafay jóg nag ci loolu dañ ci moom. mais ki nga sét nga xam ne gisoo des fois doo dem ci do dem ci fenn ci sëriñ yow. Mhm. di sétlu nga sét ba paré après do ko ma ñaan la parce que gisoo ci sét mhm. kon ñi nga gissé ñepp ñu tok mhm. dañ leen sétal xam li nga xamné ñu xam li nekk ci ñom motax ñu taxaw fi di faju waaw parce que des fois nga dem ci nit mu wax la nangam nangam nang nga génne non sëñ bi gissuma daal. waaw do demaat lég bu fekké man sëñ dam sëñ gisoo ma sëñ damay damay daal di. gatt sama bagage doo <laughs> waaw té keneen ku ma ne kaay ku lay sétal dama ko naan wala bolé waaw parce que <laughs> la mais do dem ci ko xam seet na la gis la. Uh-huh. man limay may di am ci ay rang des fois nit woo xaw a yéex jot seetam c'est parce que xëy na des fois dafay fekk ay nit d'accord mais seet moom loolu yi defanduwuñ ko kenn mhm. yàllaa ko def mhm. voilà te itam xam-xam daal li ma wax sànq ci bi ñuy ubbi mhm. xam-xam li ngeen di salaam salaam moo xam ne alxilmu xablal xawli wal xamali jëkk ngay wax da nga war a am xam-xam jëkk ngay jëf da nga war a am xam-xam ndax ñaar yi boo ci deful rek du tegu ci dëgg boo waxee te fekk amoo xam-xam du tegu ci dëgg boo jëfee te fekk amoo xam-xam du tegu ci dëgg moo tax mu ne alxilmu xablal xawli wal xamali kon nañ wuti ji xam-xam mm-hmm. rawatina ndaw ñi mm-hmm. surtout li ñu nekk nii du ay caaxaan mm-hmm. ay mbir moo xam ne nii bu fekkee nekkul ci yow nekkul ci sa deret bu ko sax jéem ndax gis nga aw ñaq nit ñëw jox la aw ñaqam te xamu fu mu ko jëlee nga jël jox sa njaboot wala nga jël lekk te fekk na yow li li ngay li nga wootee dugaloo ko yàgg yàgg yàgg gis faw martaba nit ñooñu dina daal ci sa kaw moo tax lii dama ciy conseillé jeune marabu yëpp ak képp ku ci lii moo xam mag na moo xam xale nga dem gëstu ji ko ba xam ko te li nga xam rek nga ragal yàlla te yam ca wala dugg ci loo xam. Mm-hmm. loolu nekk ko loolu mënul. Mm-hmm. loolu ah loolu moom xanaa ah, na sëriñ yoo xamante ne mënuñu lii te dañuy boole yëpp ne mën na. ah waaw yaa ma gën a ba ngeen dëkk xam ngeen la waxee bët bi set tey ngeen dégg coow du jeex nangam nangam dugg ci loo mënul. Mm-hmm. ak wax loo mënul. te loolu nag moom ku amul njaboot nga bokk ci famille boo xam ne nii ràññi ko nañ am na loo xam war nga koo rus. wala nga dëgg la as ko day am jomb. mais yooyu yëpp sëñ bi est-ce que muy muy kurab jàpp muy koo xamante ne rabu ndono la maanaam bu fekkee comme man sama mbokk lébu yi wala koo xamante ne nii liggéey la est-ce que yooyu yëpp mën na tee jigéen am borom kër wala góor am soxna. ah keñ bu baax a baax. wax naa ko ba ci sax bu bu ko téyee sax ba takk ba takk soxna. wala bu téye ko ba ku góor gi dara mën ko mën yoon mu dem takk jigéen joo xam dafa am faram. Mhm. moom laa wax sànq ne dana koy dox sax ci day dox sax ci wàllu ngóoram day dem ba mën a téye ngóoram am na góor ñoo xam ne dañuy takk soxna pare duñ ci sax mën a dem maanaam pour ñu jébbal ko ñu jébbale ko. Mhm. du yomb. fu ne danañ ñoo jébale seen seen soxna c'est parce que ndaw ñoo xam ne tamit même chose rab daanaka moo tax place bu ñu am liggéey. Mm. ñàkk ko fu ñu dem nit ñi dañ leen di bañ parce que rab bi nga àndal moo lay fiiri ak ak foo nekk doo am bayre mm. nit ñi duñ la bàyyi xel da ngay soof nit ñi. kenn du bëgg waxtaan ak yow mm. yow toujours da ngay wu rek. maanaam nit ñi dañ mel na dañ laa ragal mm. c'est que li koy waral mooy rab bi nga àndal moo lay fiire ak nit ñi mm. da ngay gis ñoo xam ne ñu ko dem xuloo rek duñu am jàmm mm-hmm. te fuñ amee ab liggéey rek mu yàqu mm-hmm. noonu tamit dañu amee jëkkër ñoom ñoo xam ñetti jëkkër amaguñ nañ ko te amaguñ 40 ans mm-hmm. am juróom am ñoo xam waaw mi ah. ngi ñu àndal moo xajawut kenn mm. waaw te li ñu àndal du du lu ndaw da nga gis ñoo xam ne ñu ànd ak soxna si kilifa nga xam ne da am da nga takk soxna mais ki mu àndal kilifa la a may jàmm yooyu moo ko waral mu nekk yoo xamante ne ni ñu doy waar la ñu ñëw aussi si li nga xamante ne yaakaar naa mooy nday feebar yi muy ndoxu siti nga xamante ne ñu bëri dañuy wax ne ku ko amul da nga amee wopp boobu di gaana sëñ yéen da ngeen yëngu si ndoxum siti waaw sama maam day daana ko ci juróom-ñaari fan moom siti siti nag wax naa ko sànq ci biir wax ñaar mook cat ñoo yam fi ne nit ñi dañu ndax turu ndaw wi mhm. waaye bari daana koo xam mu ngi dem tekkee ne dañ koo liggéey wala tekkee ne dañ ko defee fekk siti doon ko jàpp siti dana jàpp nit ba mën na dañ ko liggéey si naka. parce que Sidi da ngay gis koo xam ne nii bu bu xasee ba tëdd guddi. Mhm. du am jàmm yaram wi day tàng ci am salaire. Mhm. nga gis koo xam ne suufu tànk yi day obligé sax def ci ndox wala mu dugal loxo tànk yi ci ndox doo ko am jàmm. Mhm. gis ñoo xam ne nii seen noppi day riir. gis ñoo xam ne karaw duñ ko am day ruus gis ñoo xam ne seen bëñ yi fu ñu toll day fell. nga gis ñoo xam ne nii maanaam parce que Sidi day liquide boo xam dafay topp deret ji ak sédit yi. maanaam fe yi ci ñaar yooyu la nekk. sëriñ gi ak deret ak deret ji léegi da gis bu nekkee ci deret nag moo war nit ki des fois mun nga làmb ni sa yaram yow du tàng mm. fekk yaa ngi aw tàngoor sa yaram mm. léegi nag tàngoor mm. nekk day yuuxu c'est parce que site rek moom koy def da ngay soo xam ne waxtu lekkee comme ça bu ndekkee añ du ko def reer kay xanaa lay wax añ moom du xiif gis koo xam bu reeree itam du maanaam ndekki suba mën na ko bañ a parce que biir bi dafay gonfler day am air. Mm-hmm. maanaam li mu lekk du gaaw a rees. gis nga maanaam biir bi foo fekk day ballonné mm-hmm. même bu demee ci toilette. Mm-hmm. da ngay gis ne mën na faa yàgg mais du dem àll. dafay ngelawal rek. wala buy dem par ay dog-dog lay doon. nga gis ne léegi développement bi ci biir maanaam biir boobu noonu ngelaw li ci nekk. mooy wowal cabinet yi dañuy soo xam ne nii ndekki na démb añ reer xëyaat ndekki añ reer ba muy ñetti fan. te mm. demul duus. <laughs> donc war naa fa yooyu loolu bu ñu la waxee feebar nga bu ñu ne wéeroo. sa dëgg dëgg. léegi xam biir bi ngelaw loolu ci nekk. Uh-huh. tàngooru siti boobu. Mm-hmm. mooy wowal cabinet yi. dëgg la moo tax des fois boo demee cabinet sax pour li ngay li ngay war a génn génn dafay xaw a jafe. Mm-hmm. te nit ki bu wéree dëgg-dëgg war na dem bu set benn yoon àll wala mu dem ñaari yoon sax bu fekkee li muy nekk lu gajax la war na dem deux fois mooy su yeewoo suba teel bala mu dem benn yoon ci bis bi te bi ngay dem àll li ngay dem àll wóorta ko komm nañu ne ñuy dem àll ñu dem toog partout tey génn te fuñ toog dañuy ngelawal te pourtant ñu ngi ndékki añ ndeer kooku dafa amee euh, ndoxum siti hémorroïde nag man bu may faral di wax damay hémorroïde ndoxam siti moo koy indi. man mhm. ko ku ñu naan hémorroïde mhm. na. xam ne siti na lu yàgg te faju ko. siti bu dem ba chronique mhm. nit. ma dama la koy faj nag man kay sama fekk ne li leen dal lañ fa jot siti bi ngay faj ba mu dee bu dee rek hémorroïde dootu ñëwati. siti que si dañ carrément day dañ mais nag day sëqaat nag. Hmm. sit yi moo ko cata yam rek mën naa ne hmm. cat fi ne du nekk luy dañ ci nii mën ko sangu nag ba mu dañ ba ko misaal dama ko misaal ci karaw xam nga wat sama sikkim ba mu set ba doo gis benn karaw mais même pas une semaine boo ñëwaatee gis ma amaat karaw parce que nit dem bu dee cat la nit mom la am hmm. fo génn nit ñi dañ la xol dañ wax ci yow soo yoo soloolu bees wala nga war bu ki nit ñi dañ wax ci yow bët yooyu la gis ak làmm yooyu. mais la tudd. Ah. da da cee teguwaat. Mm. moo tax nit ki dafa war a am waxtu bu nekk ndabul cangatu sax boo xam. cat loo xam ne. Mm-hmm. saa yu toogee moom yàlla daf ci war a dugg. ak di génn. Mm-hmm. waaye bu fekkee dafa toog rek. Mm. bàyyi boppam noonu rek bu dee ba cat yi sëq ba sëq. mooy waral na bu réew mi yëpp tëju. Ah. mel na dañ ko liggéey léppam dëgër. waaw Siti tamit noonu la mel. Mhm. comme lekk yi ñuy lekk dafa bokk ci luy joué ci li ñuy jox Siti. Mhm. kon waxtu boo ko fajowoon boo ko traité ba mu jeex boo toogaatee ba yëngu jamono. Mhm. da nga ko war a traité ma ngeen daan def dañ daan nandalu. di am ay garab yu ñu jël nii mooy waral seen Siti di di wàññi ndax Siti ku jàpp rek ba eggeeg fii moo wax ak yow mooy di seere. da ngay gis ne bu dee góor la da ngay gis ne awra bi day mel dellu. da ngay gis awra bi day tuuti lool. damay faral di man gëw yokk awra. waaye nit ki dina tawat ba awraam dem garab yi nga koy jox traitement bi nga koy jox muy mu di ko tur maanaam muy mu koy dem cabinet ak di ko di ko sawloo. waaw mooy génne jàngoro ji waaw waaye yokk awra yàlla ni mu a da ah, ngay wax. déedéet ku ne awra am na. yow man dégg naa fii Thiès seen dëkk bi fii sax dañ fi rang ku yokk awra di natt ay deux ñaari nga nga waaw parce que parce li tax ñu wax loolu mooy dañoo xam ñu bari seen awra gàtt. waaw te te te feebaru boo xoolee ña koy faj ni boo àggee ay reen lañ lay jox. waaw kon traitement cité lañ leen defal ak feebar yi nekk ci nit ki waxtu woo demee nga xam ne kii yooyu jeex na mais doomu aadama moo nekk moo toll foo xam ne da ngay soo xam ne loolu bu fekkee da mm. koy gëm waaye jàngoro nag dina dem ba delloo awra mm-hmm. gis ne bu tuutee tamit da ngay gis ne waxtu wu jëlee feebar fajoo bu fajoo ba wér mm-hmm. da ngay gis ne sëdit yi dafay parce que nee naa la jàngoro ji mm-hmm. dafay nekk ci sëdit yi ak deret yi moo war nit ki articulation di bañ moom yi di bañ wala conco yi wala yenn ci yàqu di ginnaaw yi gis yoo xam seen yàqu di ginnaaw yi itam jër seen digg li bu ñu sëggee mhm. pour ñu sigg rek problème la mhm. ñoo xam seen seen tànk yi même chose suñu julli sax fi ñu mënuñu ko loolu yëpp siti moo koy def d'accord léegi su ko defee ne léegi noonu muy banque sa sidit yi ba sa oom yi di metti noonu lay banque tam sa sidit awra yi waxtu waxtu yeggee ci yaa ngi yaa ngi seere rek mhm. muy jàpp ndigg rek parce que sidit yi jàpp awra moo sidit yi ndigg benn la su ko defee waxtu commencé téy ndigg rek ñuy téy wàlla awra wi dañ su ñoo xam tey bu ñu sëyee ci guddi pour ñu sëyaat problème la maanaam dañuy am problème amaat envie. parce que siti bee leen jàpp. gis ñoo xam pour ñu jugal sax problème la doon. Mhm. dafa am nag boo xam rab a koy def am boo xam ne sitee koy def. Mhm. bi siti def mooy nit ki mun na jógal. Mhm. awra bi jógal jóg waaye dafa nekk ci diggante dëgër ak ñàkk dëgër maanaam du dëgër këcci. waaye tamit du du du nooy. kooku sitee ko dal daa war a dem faju ji. mais nag ba pare da teg day gaa wàcc mais boobu sitee koy def bi rab di def nag mooy nit ki awra mën na jóg dëgër këcci mais dafa dul yàgg. kooku. dangaa am rab yow wala ndaw si am rab di la fiiree. di ko defee waxtu wooy jëflanteeg ndaw si rek dafay am bànneex bu mu la imaginer. da ngay a daanu. d'accord su ko bee sit la da ngay nekk ci diggante glace gi formé ak ñàkk formé maanaam nekk ci diggante dëgër ak ñàkk dëgër. Mhm. kon yii ñuy wax ni xam-xam la yoo da ngay xam da nga koy wax ki mu dal na mel. Mhm. ak télé rab. Mhm. télé bi rab def ak télé bi sit def noonu ni muy jàppee góor noonu la jàppee jigéen. day gis ñoo xam ne nii maanaam seen seen seen seen jigéen lañ. Mm-hmm. mais bu ñu sëy day metti lool. Mm-hmm. parce que siti bi dafa dem ba rey seen livre bien maanaam li ñuy wax maanaam booy def muqaddima maanaam booy booy booy wax kii ak jigéen. maanaam mm-hmm. booy indee euh, foog balaa ngeen di sëy. am na ndox moo xam wadd yu mooy njëkk a génn ndox moo tax moom. siti dafay dem ba day rey ndox moom mooy jigéen ñoo xam amuñu ko. boo ñoom tey day metti parce que siti bi moo ko lakk. d'accord ñoo xam ne waxtu ku góor ki li génn ci moom su demee ci ñoom. fekk ñoom dañoo am siti siti bi dafay lakk lakk mënuyu boobu. ba mm. la fa waroon a formé wu nekk euh, doom. du am bokk tamit bi rab di def tamit rab tamit dinay dinay def noonu mais bu dee rab la da ngay séy ku góor ki. Mm. mais bu góor ki bu waxtu euh, ndox moomu génnee ñëw ci yow rek mm. automatiquement day génnaat. boobu rab moo koy def des fois rab bu bañee nga am doom wala mu la yàqal ci wàllu njaboot. noonu lay def bu ngay séy sa soxna ba pare mu génnewaat ndox mi. nga gisaat ko ni nga xam ne duggut. te eh, eggul fa mu war a placé wu mais bu lay cité nag daf koy lakk automatiquement mhm. ndox mi day daal di mel na ndox mhm. su ko defee loolu dootu ko jëriñ dara mhm. su ko defee yooyu noonu day xam-xam bu xóot bu yaatu boo xam dañ ciy jukkee ni lii rek mais xam naa danañ ci gën a yaatal incha allah gën dinañ ñëwaat ci Thiès moom xaw ñu wax mais yi ngi fi fekk nii ak mbooloo mi voilà mais dafa am lu doy waar loo xamante ne ñu ngi si waxtaan léegi mm. Mm, nga ne jigéen dina dem ba am jëkkër mm. mais mën na am tabu kilifa bu mu nekk ci moom yaa ngi ma koy jox misaal si suñu artiste bu ñu fi takk yàggul mm. nga may wax ne bu defulee ndànk du yàgg ci sëy bi waaw loolu ci suba rek maa ngi koy wax bi ma ko seetaanee ci internet bi ñuy wax ne diw sàngam takk nañ ko mm-hmm. ab dama ne ah xam naa ne kooku de ku war a ñaan la ci ab sëyam la ak boppam ndax moom dafa am rabu judduwaale dafa am rab boo xam ne mu ngi ko jël ci néegu baayam rabu mm. kilifa la maanaam moom boo xool maanaam dafa taxaw taxawaayu góor maanaam góor góor kilifa ko mën a yor wala ku ku ku mën a muñ dëgg ay kiyam parce que dafa yor rab boo xam ne góoru kilifa mooy lan góoru am xaalis moom milliardaire la sëyal déedéet maanaam xam nga Sénégal dañuy jaawale ah. am xaalis ak kilifa ah. mën naa mën naa nit mën naa ba pare doon kilifa d'accord nit mën naa ko joxoon nguur joxoon ko kilifteef joxoon ko ak nubuwa

yoruñu vidéo boo xam ne vidéo boo xam ne léegi nag artiste boobu noonu na ñaan ci wàllu wàllu rab boobu noonu mm-hmm. parce que moom booy xool dese naa dese naa bëgg ji góor dëgg dëgg bu doon bu doon jigéen na ñu ne dese naa bëgg góor daal dese naa bëgg góor parce que rap bi des fois koy fiire ak ak ak kii daal ak ak ak góor mm-hmm. maanaam mun na ko xeetal ci dara nag mu tabbi ci ak doole mais bu ci deful ay sarax ay ñaan rek. Mhm. mën naa jékki-jékki rek xëy xëy loolu soof ko mu jékki génnaat ci. Mhm. voilà jaajëfal naa ko bu baax a baax moom borom daam suñu ax ma amaan mbégte bu baax a baax xam na jomb leen du ñuy faral di gëj Thiès benn dëkk ñaari gaar bu ko defee bu la ko jëggee mayee de temps en temps dañ ñëw rek seq waxtaan. uridu ila al islaah ma satantu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu